kan nga jàpp ne moom la ñuy def premier ministre bu Sénégal ban profil même su fekkee. mën a ah, wax tur waaw. <laughs> mais boo mënee wax tur aussi ah. mais bu dee am na ay tur yoo mën a avancé. <laughs> parce que ah. gars yi ñu ngi commencé def météo ñu ngi commencé jox ay man la ma doon wax waxoon naa ko bu yàgg. Ah, la ma doon wax waxoon naa ko bu yàgg. ci poste premier ministre rek. Euh, kan bon bref waxoon naa ko la ma ci doon wax. Mhm. leneen lu ma am ci lu ma doon waxee je le dis à mon neveu c'est c'est c'est comme ça c'est parce que nit boo amee possibilité Fatou Abdou yow waxuma sax président yow su ma amee possibilité su ma gisee nga def lu dul noonu mbaa lu ma bëgg nga def ko ma jël sama téléphone wala la Fatou lii ak lii de su ma sañoon nga def ko. Mhm. loolu bu dee am naa ko bis boo xëyee gis ma ci rajo wala télévision may wax ci yow dina la war a jaaxal. c'est aussi simple que ça du ay nekk opposition ou bien nekk au pouvoir parce que man xam naa ñoo nga xam ni nekkuñu ci parti sax waxuma la opposition pouvoir wala ñu nekk ci parti d'opposition di jariñ à tous les présidents yi fi nekk loo nga xam ni ñi yor rajo ak télé duñ ko jariñ parce que danañu gis lu baax ñu wax ko danañu gis lonk bu ñu ko defee mu indi safaan ba ñu woo président wala ñu bind ko wax ko deuxième chose mooy un conseiller xam nga nag Oudé nu mu la gisal lay ëwalee mon frère Oudé noonu la gisal la lay ëwale. amul ah, wax loolu yow tamit na monsieur le ministre. mais c'est la vérité. fi nga tabb conseiller ne conseiller man j'ai été conseiller. Mhm. conseiller soxla woo toog ak kilifa gi pour wax ak moom. déedéet da ngay def production intellectuelle production boobu ngay def ca la kilifa gi nawe ba ne attention ce dossier là est important Fatou Abdou lii ak lii fokk ma woo ko. xam lu tax nangam ak nangam. mais boo demandé boo demandé à rencontrer le président de la nga di ko demandé. non mais mais am na sañ-sañ aussi bëgg ko gis. attends attends am na sañ-sañ bëgg ko gis. c'est normal mais dama ne boo nekkee un la ngay produire yow en tant que conseiller. Mhm. ci lañ lay respecté. ci la ki ngay conseiller moo xam président la moo xam député la. moo xam kenn parce que député yi am ay conseillers am nañ ay mhm. assistants. Mhm. mais ki nga xam ne saa bu bindee dara jox la di nga ci gis njariñ boo nga xam ne bu am solo la Mm-hmm. di nga ne attention mais kii mooy kan woo leen ma ko ñu woo ko mu ñëw nga wax ak moom jëf ak moom mu xam ne lii mooy sa cër. Mm-hmm. donc on n'a pas besoin toog ak kilifa gi pour mu mën ko servir de conseiller maintenant pour quel profil man personnellement su may jël un premier ministre du ma jël un premier ministre bu dul politique. ah oui pourquoi absolument gouvernement attention Fatou Abdou gouvernement c'est pour des hommes politiques ku politiqueul tu n'as rien à faire dans un gouvernement dafa am benn benn kilifa bu mag bu nekkoon parti socialiste yàlla na ko yàlla yére muy suñu papa Abou Amadou Racine Ndiaye dafa profité ci benn audience bu Abdou Diouf doon recevoir les les les sages parti bi audience bi mun ko ah man de président amoon naa soxla ci yow xanaa damay déposer xam nga ñoom yar bi leen yàlla def bu doon ñu a dañuy déyanteeg président mais daf ne ko damay déposer benn demande comme ça boo amee jot président Abdou Diouf ne ko non non non non gunge ñeneen ñi dellu si mun ko mais Abdou tu es en train de perdre ton pouvoir. dans un pays les postes les plus politique ci gouvernement c'est le ministre des finances et le ministre de l'intérieur du affaire caaxaan. mais kon loolu ndax fast track dina am. fast track looloo tax fast track xam nga lu tax muy tax fast track am. ndax la tax exemple tuuti. Mhm. sëñ bi bu nekkee politique nekk ministre des finance mu xëy ñu ni ko dañuy yokk ceeb par exemple juste pour donner un exemple xalaatam bi buy njëkk am mooy ñamu bàyyi ginnaaw bu demee lu mu leen di lay mooy premier réflexe gis nañ fa ay ministre des finance au Sénégal yow banque mondiale lañ leen jëlee directement wala FMI def leen ministre des finances ñu indil ñu plan d' ajustement structurel doyen vous êtes témoin plan d' ajustement structurel wàññi salaire yi recrutement amatul investissement amatul avec l' état du Sénégal pourquoi parce que FMI ak banque mondiale loolu lañ bëggoon te ñooñu la leen intéressé woon mooy nañu fexe ba FMI ak banque mooy ni leen bravo oui am nañ bravo parce que bi ñu jógee Sénégal am nañu promotion le politique ñu bëgg ko ñu bañ ko mooy jaxasoo ak askan encore une fois je le dis je le répète. léegi kan. il est que il est vrai que li ngay wax nii ñun dañ koy dénoncer même entre nous da dégg ñu naan tel ministre kenn mënu ko woo ba jot ko téléphone. tel responsable kenn mënu ko jot ko téléphone par contre di nga dégg ñoo nga xam dañ leen di tàgg ci loolu parce que boo leen woo même boo leen jotul su ñu gisee sa appel danañ la rappeler. Mhm. donc du ni ñëpp noonu lañ mel loolu ñëpp meluñu mais de manière générale loolu mooy taxawaay bi kii. comme président comme. comme premier ministre. je le dirai au président. <laughs> te li ma ci wax nag waxoon naa ko ci rajo yi. ak télé yi kan nga ci waxoon kan. nga avancé woon mais man dama waxoon bi ñuy mm-hmm. dem. choix wu le maire de Dakar. parce que li tax ma di ko wax nii sax. maire de Dakar. attends après les élections waaw dama ne démb. Mm-hmm. ci guddi sa confrère RFM dañu poser dañu poser la même question. Mm-hmm. ma Kumba Bay daf ma wax ni. pour ne danga fi waxoon ni choix wu maire de Dakar pour yow ab Abdoulaye Diouf saar la war a doon waaye buñ la laajoon premier ministre nga joxe Amadou Ba buñ la ni woon président pour rappel nga joxe Amadou Ba ma ni ko maa ko waxoon je le confirme parce que question la boo nga xam ni dafa am contexte bu mu duggoon ñaari nit lañ ma doon wax ne ma kii mooy doon candidat à la mairie wala kii ma ni pour man kii la fii la jekk kii fële la jekk. Amadou Ba ki ma xalaat. alors suñu ma ne woon tey Amadou premier ministre j'applaudis hmm. je n'ai aucun problème par rapport à parce que xam naa ni mën na ko leneen li ci des nag di samay réflexion bopp su ma toogee ki ma ko a wax naa ko wax. alors euh, jamono ji nga xam ne ñoom ñi ngi def seen i réflexion honorable ñoom ñi ngi def seen réflexion président de la république di dindi ak di tegaat jamono jooju yéen ku jëkk politique yi yéen a ngi xaajaloo dem ci élection bu ñu paree élection ñu tabb benn premier ministre boo xamante ne kenn waxtaanu ci ak yéen donc dangeen ngeen di da ciy topp rek au moment où yéen xaajaloo ngeen muy division boo xam ne daf leen di gën a affaiblir. xam nga moom yaa ko yaa ko yaa ko posé yaa ko xalaat. yow ñoom bu ñuy def seen révolution ñun ñun ñun ñi ngi def suñu xalaat ba jafe-jafe askan yu ñu nekk ñu génn lii tamit neexul li ma la laaj question la dama ne xam nga danga ne danga ne au moment où peut-être le pouvoir mi ngi def moom ay mbiram jamono jooju yen ku jëkk politique yi yéen a ngi divisé wu dama ne xam nga yow dama ne loolu yow yaa ko xalaat yaa ko wax ñoom bi ñuy def seen bi ñuy def seen i seen seen i seen i mbir di xalaat kan mooy nekk premier ministre ak seen ñun ñu ngi assemblée nationale di xool cinq cent cinquante milliards yi nga xam cinq mille cinq cent milliards yi nga ni moom la Sénégal war a séddoo ñu xool ñun Touba gi ñu fal ñaata lañ si war a am ak askanu Sénégal ñun loolu la nekk fi mu toll ni may wax a yow ndax dafa nekk loo xamante ni loolu dañoo ñor jamono yii xaalisu réew mi ñu ngi koy séddoo ñun ñi fi nekkal askan wi war nañoo xam maanaam la ñu joxe woon daaw fan lañ ko dugal ba fi may wax yow nii léegi nii fi laa jóg ministre ne ko yow mi nga xamante ne bi nga nekk kayal la fa diggee woon jox la maanaam cent cinquante millions et deux cent millions benn journée de l'élevage ren ñu ngi la jox deux cent millions euh, nga war ko yóbbu maanaam daara ci benn suur xaalis boobu lan bëgg xam kan moo ko jariñoo lu dul luy ay baas ak tëgg ak fecc muy xaalisu askan wi loolu si laa nekk parce que loolu damay naqari ba nga xam ni dama koy xam di ko gis ma gis député di ko wote man may wote contre mënuma si dara si loolu laa nekk pour xeex askan woo génn seen jafe-jafe yooyu noonu kon bul ni ñoom bu ñuy def li opposition ma nga def li da ngay laaj opposition yay def loolu nga laaj man opposition bi mu bokk dama nekk opposition VIP opposition VIP mooy lan on mooy opposition boo xamante ne da ngay nekk si askan wi. non mais xam nga tam yow nan nga mën a taxawee ne da xeexal askan bi. xam nga opposition VIP boo ko déggee Fat Abdou. da nga may déglu ma leeralal la. bu kiiwal débat bi yow tam yow ñuy wax ay opposition. da ngay dégg opposition opposition VIP mooy opposition boo xam ne Bambaye maamam mu toogal askanu Touba. kooku mooy opposition beneen bi mooy du ma opposition boo xam ne da nga may dégg rek may taltali si mbedd te du ma wax lu ñor doo ma dégg mukk tamit askan wi soxla te defuma leen c'est-à-dire dafa am opposition diamétre ñoo xamante ni xëy na dañuy wax pour seen intérêt bopp man lu may wax sama intérêt aussi nekk ma bàq. léegi ñuy wàcc ci mbedd mi ñoom opposition lan la. dama ni xam nga c'est-à-dire loolu da nga laaj ñoom man sama bos laa wax man man sama bos bi muy opposé maa ngi opposé kanamu askan wi di wax ak ñoom di leen jàppale sama alal sama bis de 2017 ba fi may wax yow 300 millions francs CFA social def naa benn nit bu ko mas a def ci opposition amul. def naa bilan Touba moo tax may laajaa département dans si li ma man ci li ma défendre askan wi juróom benn maanaam yoo xamante def naa ko ay proposition loi assemblée mhm. de compte lu nekk def naa ko mais c'est-à-dire loolu moom nga war a rafetlu mhm. mais amaa ngay taxaw naan opposition yéen ñii ñu def li def lu may ñaaw la man si man si loolu laa nekk léegi nag la kaa mooy bu fekkente nii tey yaa ngi waaw léegi bu fekkente nii tey loolu rafetlu woo ko nga bañ ko maanaam nga bañee a ñaaw leneen man c'est-à-dire man fi ma nekk laa la wax. nga terminé rapidement léegi la kaa mooy fi ma nekk man foofu laa nekk bu ma sañoon tamit ñëpp fi la nekk mooy dañuy liggéey pour liggéey bu laaj baatu askan wi jotee nga dem laaj baatu askan wi buñ la ko joxee nga def si lu raw li fi ciy dekk def ndax fi may wax yow nii nee naa la maanaam malgré que day ñëw euh, procédure d'urgence mais ni ko si biit Sénégal après maanaam bu ñu demee mois de janvier deux mille vingt deux ba pare. ci la ñu indi maanaam ci la ñu nommé poste maanaam nommé premier ministre bi mais fii ak janvier lan la dañuy toog di xaar ka yaakaar déedéet am na liggéey boo xamante ne bu baree bare boo xam ne dafa ñu war war Sénégalais yi pour toog xaar ndax aussi am na si ñaari ndëgg sarax yoo xamante ni danañ ko wax bu ñëwee. Hmm. benn bu njëkk bi juillet deux mille vingt deux dana dem élection législative bu ñu indiwaat poste premier ministre ñu dem élection législative su boobaa sañ-sañu Macky Sall mooy bu amul majorité ensemble mandat tas ensemble national assemblée nationale amul sañ-sañu na nommé premier ministre ndax loolu nekkul si condition pour le loolu lépp ay ndëgg saxaat da xool bu ñëwee loi bi ñëwee. alors li ñu dese malheureusement bariwul lan ngay tàggatoo rapidement rek Abdourahmane. waaw baaxum wax sànq rek. laay réitère.